laa yeta daganut muy laal kimsihaa fii laylin ci guddi aw naharin walla bëccëg xataa tan qadiya bata jeexee alkafaaratu kafaara nit bu tihaaree jabaram il faut balay daganati ci moom day kafaara fekk baa mooy kafaara ba xàggal nag daganut muy jaxasoog moom du ko def ci guddi du ko def ci bëccëg fa in bu defee salika laal googule fal yatub na mu tuub ilallahi jëm ci yàlla asa tet na wa jalla te mu màgg su fekkee moom si haar na jabaram jàllar be ko laal ko xablal kafaarati kon ku bàkkaat la dafa wara a tuub ndax gannaaw kim laal nii kuñ ko takkal la takk-takk boo wér xaram ngi loo la laal gi duñ ko tuddee sinaa bañ naan nañ ko jéggateen déedéet waaye nag wax dëgg yàlla war nay tuub ndax lu ñaaye la def na fa in faala bu defe saalika laal góogule fal yetum na mu tuub ilallahi jëm ci yàlla ansa tet na wa jalla te mu fa in kaana bu nekkee wat uhoo laalam baad an faala da ci gannaaw bu mu defee baadal kafaarati lenni kafaara su fekkee dafa tàmbali kafaara xàggagul mu jaaral be ku laal ki mu sihaar mm-hmm. bii taamin ci lele aw soomin walla koor mm-hmm. fekk kafaara gu ñuy tàmbali xàgg gut lele lay do walla xoor mm-hmm. waaye golal amul tàmbali muy ñàkk àgg moom day am rek mu jeex waaye moom war na lehaat juróom benn fukki miskin mu lehaalaale ñeen fukk dese ñaar fukk walla war na xoor ñaari weer mu xooraale weer ak genn wàll dese genn wàll weer foofu la laalee ki mutiha kon fal yabtadiha na tàmbali haat kafaara gi kon lam lele haale hoon day yàq day dale haat ci benn lam waraale hoon day yàq day dale haat ci benn benn mu ngee te haar mu ngee kafaara hàggagut jàllafe ku laal mudahar min ha dafay waral lam defaale woon ci kafaara gi yàqu kafaara ko hàggagut nag lele lay do walla hoor waaye gorel moom fi koy defee foofu lay fa in kaana bu nekkee waduhu laalam ba da an faala de ci gannaaw bu mu defee ba dal kafaara ti leen ni kafaara xam ne dem na ba tàmbali kafaara waaye xàggagut mm-hmm. foofu la laalee ki mu zihaar mm-hmm. biit xamin ci lele mm-hmm. comme tàmbali na lele pareegul aw soomin wala koor wala tàmbali na koor pareegul kon fal yëpp te na mu tàmbali aat kafaara wax la dañoo wax ne jaam bu xam ne xamul benn manki lañ wax de mm. am na manki yu ndaw yoo nag mm. du tere nit ki doy mm. moom lay wax ne wala baasa dagan na benqil awari ci goreel jaam bu patt jaam boo xam ne dafa manki li ab bët waaye benn bët baa ngi gis loo duut manki guy tere doy ci zihaar ci zihaar su ko nit goreelee ci kafaratu zihaar kon itam dana baax mm-hmm. wala di sinaa ak doomi caaxaan mm-hmm. moom benn manki nekkul ci moom mm-hmm. waaye tilima ci moom tilim biit moom defu ko dañ ko ko tëqal dañ ko tooñ rek ñi ko jur ñoo ko tooñ rek loolu waa du ko tee doy waaw benn manki nekkul ci moom jëmm ji dara manki wu ci xanaa tilima ko tëq rek tilim bi it nag moom defu ko dañ ko tëqal rek loolu teewu koo doy woy fiwu dana doy mm-hmm. assaxiiru goreel gune mm-hmm. jàmboo matagun mukallaf mm-hmm. su ko nit goreelee ci kafaratu siha kon itam doy na waaye su xamul alal nag yow mi ko goreel yaa ko war dundal ba keroog muy mat mukallaf gannaaw jàmm bi amul alal waaye nag waman gune goo xam ne salla xam na mu xàttey julli wasaama te mu xam xàttey koor ahabbu moo gën a sopp mm-hmm. ilay naa fa ñun boola may ko jóg Malick mm-hmm. waaye nag booy goreel gune itam mm-hmm. na doon ku ràññeeku ku xam ne xam na dara ci mbiru diina mooy gën nga de goreel liir buy naam kooku de donte dana doy itam wax dëgg tànn ñu ko dëgg-dëgg loolu mooy fi bokk na ci liñ tarjamaaloon ci bunt bi li ñuy wax allihaan lu doye doy waar la mooy góor gu tuumaal jabaram si sina te teewalut ay seede yu dëgër lim wax yu saxal lim wax te lim wax yi dëgër ba kenn mënu koo weddi ndax itam ne nit mënul lu mu gis ci këram rek ku dal ko seede waaw diggante nit ak njabootam dafa xat ba nga xam ne nit du man lu mu xam ci njabootam rek keneen xam ko nag kon nag bu ñu bëgg gàcce nit keneen lu wax ci këram na ko wutal seede dafay xaw day waar lu mel ni nag bu amee nag ci diggante nit ak soxnaam moom borom kër dana am lu ko yoon may waa loolu lay jàngal mooy lihaan wa lihaanu rëbboo bayna kulli zawjayni ci diggante bépp ñaari way dencante wala wa lihaanu rëbboo bayna kulli zawjayni aji nekk la ci bépp diggante ñaari way dencante ci diggante bépp ñaari way dencante maanaa rëbboo ci diggante jëkkër ak jabar rek nag ci lañ koy xàttee waaye duñ ko di xàttee fenn nag feneen nag jëkkër ak jabar ñaari gor lañ jëkkër ak jabar ñaari jaam lañ jëkkër ak jabar kii gor la kii jaam la yépp ci am xew-xew bi bu amee dañ may xàtte yin bii wali aanu rëbboo bayna kulli zawjayni aji nekk la ci bépp diggante ci diggante bépp ñaari way dencante wala bayna kulli zawjayni ci diggante bépp ñaari way dencante fii na fi xamlin ci dàq hëmb wala aji nekk la ci dàq hëmb yu daha bu def na xoote xabla hoo ca njakkam alistibra u lablu aw ru'yatu zina wala gis njaalo kal mirwadi mu mel ni mirwat mooy bantab tusngelookaay fil mug xulati ci ndabal tusngel ci tusngelookaay ci ndabal tusngel mooy góor dafa xasee jabaram si naa te teewalut ay seede te la mu wax neexu da weddi comme jabaram dafa hëmb mu ne moom jurul hëmb bi ndax laablu na ko ba xam na ne yoreelu ko dara te bu waa léegi séquñu lenn kon bu hëmb xamee jógewul ci moom lool la loolu la loolu la def ana nu ñu leen di àttee wala mu wax ne fekk na koog nit fekkee mu jagadee jagadi woo xam ne kanam ku góor gi mu ngi ci biir kanam ku ndaw si fekk na ku jigéen gi mu ne fekk na koog nit fekkin wu jagadi woowu loolu bu ko nit waxee jabaram nañ koy àttee moo tudd lihaan xam nga tuumaal na ko njaaro teewalu seede waaye li mu wax nag neexut a weddi ndax itam nag li wax xam-xami nit ñi mën na cee bañ a bari nag ndax nit duut fa muy yàgg ci këram ku ne mën na fa yàgg kon duut lu mu fa gis rek war na ko mën a wutal seet wala aanu rëbboo bay na kulli saw jayin ci diggante bépp ñaari way dencante fii naf yi xam li nekk na ci dàq hëmb bu xam ne yu daa def na xoote xab la xooy ca njëkkam alistibra o lablu aw ru'yatu zina walla gis njaalo kal mirwat yi mel na ka mirwat fil mu xulati ci tusngelukaay mirwat mooy bant bi ñuy tusngeloo de ko rëdd mu xula mooy ndab li ngay yor bant bi génne ko tusngel bi topp la comme xalimba daa rek gis nga baax a waxtu lépp wuutees na nag fil lihaani ci rëbboo fil xas bi ci xaste moom mu ngi xuloog jabaram naan ko sàllaaw maa góor ñi la bokk de xemu la ci man de mu doon lu xam ne affaire ñaaw la meñ rek la ndax loolu bu ko defee dañ ko war a caw rek comme ni ñuy def ku yara def kuy wax lu ko neex wala gannaaw jabaram lay waxaat rek mën nañu def li am xuutee moo ci am su fekkoon li mu wax daf di lu xam ne doonte teewalu ko seede itam duñ ko mën a jàppee yëf yara defu na fu dër foo xam ne neexut a weddi kon moom la ñuy def li waaye su fekkee dafay waxee xamade rek an ah, ko da ngay si naa da ngay lii hmm. ndax moom bu waa moom dañ ko may mu def li aan comme jabaram lay waxe hmm. waaw duñ ko def mu duñ ko wax mu def li duñ ko ko may parce que li muy wax dëgërul hmm. dafa yàlla décoré dañ ko war a géteel ko wuutee moo ci am jënga bu baax ba waxtu li fa wuutee na fi li aani ci rab boo fil xas bu ñu tàggalooxee ñoom ñaar nag mooy ñaari way dencante billi haani ci raboo lam yatanakaha dootuñu dencanteeti abadan faw ñaari nit bu ñuy sëy dem ba ca kanam xew-xew bi xam seen diggante bañ xàttee leen nii dootuñu nekkati ba mukk seen wax ba mbir la mu xam ne ku ci jaar ak jigéen dootu leen nekk ba mukk yoon daf la koy xaye ba faw dootu leen nekk ba mukk seen wax ba wayab da u dana jàkkee azawju jëkkër fa yaltaayinu mu rëbb arbaa shahaadatin ñeenti seede billahi ci yàlla summa yu xammisu mu topp mu juróomele bilaanati ci rëbb loolu bu xamee xaakimul muslimin kii xatte dafay xoo ñaari wéy dencante yi ci xattekaay bi xoo mbooloo ñi teewee ko mbooloo mi luñ tuuti tuuti mm. danañ man ñeenti nit jëm kow mm. waxtu bu mu leen xoo nag baax na mm. waaye nag mu xoo leen gannaaw tàkkusaan moom moo gën su leen waaye ba ñëw mu xoo mbooloo mi bañ ñëw mu nett li leen kaa bi ne diw moo fi indi soxnaam wax na lii wax na lii wax na laa mbir la mu xam ne am lu ci yoon tëral waaye balaa ci yoon bala ñoo jëfandikoo yoon nag yéen ñi xam na ngeen waxtaan wax leen ak ñoom wax leen ak ñoom noonu laa ko mën a wax leen ak ñoom suba ñoom borom xam-xam yooyu ñooy wax ku góor gi na ko li nga dugg nii lu danser danser la te su fekkee yaay juum nga nangu gàcce àddina fii nii mooy gën ngay taxaw amaamal laa ñii la fa gàcceel yawmal qiyaama su fekkee yaay juum nga nangu ñi géteen la géteen ni xasle mooy gën borom bi di la jël di la yóbbu safara moo tax su la wóoree ne yow yaa def erreur daal ci sa biir kar nangul ne yaay su waxee ne hóolu na ko diggante moom yàlla waa ki mu da ko wax na ko dangay wax ne def naa yàlla muy sama seede ne ndaw si mooy ne yàlla ashadu billahi laqad sanat moo xam na dafa wax ne fekk na koog nit wala dafa wax ne jurul doom bi wala mu ne ashadu billahi ma hada alhamdu minni def naa yàlla muy sama seede ne doom ji la su fekkee nafyul xamli la wala ashadu billahi la raaytuha tasni maa ngi def yàlla mooy sama seede ne gis naa ko muy mooy yàlla loolu lay wax bu ñeenti yoon mu sës ci bu juróomeel bi ñi waxoon dellu ta na ko taxawal bu taxawee ñu ne ko li nga wax ni lu muy garaaw garaaw li ngay mujjee ko gën a diis ndax li ngay mujjee bu dul dëgg mën na laa jural mbugalam yàlla moo xam ne xamoo fu la jëme su fekkee moom nee na hóolu na ñu ne comme yow góor gi da ngay wax ni su fekkee damay fenn yal na ma yàlla rëbb génne ma ci daayira yërmande ci daayira yërmande su fekkee man damay fen kon yal na ma yàlla rëbb génne ma ci daayira yërmande loolu ngay mujjee loolu lay wax de moo tax ne wayab da u dana jekkee asaw ju jëkkër fayal taayanu mu rëbb arban shahadatin ñeenti seede billahi ci yàlla mu ne ashadu billahi maa haada alhamdu minni wala ashadu billahi la sanat wala ashadu billahi la raaytuha tasni loolu yaaku muy ñeenti yoon su ma yu xammisu topp mu juróomele ci rëbb mu ne moom su fekkee dafay fen yan rëbbam yàlla na ci moom loolu lay wax de su ko waxee nag lii la soriant bi santaane jeex na kenn du ko waxati dara su noonu diggante moom yàlla des suba ndaw si lañ ko naan ñëwal su ñëwee dañ ne ko yow li la sa borom kër gi tuumaal te ñemee ko nii su la wóoree ne dëgg la bu yeboo nga nangu ne dëgg la gàcc gi nga ci xamee fii moo gën a xoyof gàcc gi lay dal amaamal la gétti nii lay dal fii moo gën a xoyof mbugalam safara ci yow moo tax bu la wóoree ne sa borom kër gi li mu wax nii wóolu na ko ba ñemee ko nii dëgg la see war rek nga na su fekkee moom nee na borom këram dafay fen waxu dëgg ñu ne kon taxawal nga def yàlla sa seede ne yow defoo si na mu taxaw ne ashadu billahi laqad kataba def na yàlla mooy sama seede ne góor gi dafay fen wala ashadu billahi ma sanay def na yàlla mooy sama seede ne man mooyuma yàlla loolu la bu muy juróom bu muy ñeenti yoon bu defee bu juróomeel bi ñu dellu ko ragal looxaat na ko nag bi ngay mujjee nag moo gën a diis su ragalee foofa ñu xam ne ragal su ragalul nag ñu ne ko da ngay wax ne su fekkee sa borom kër gi wax na dëgg yal la yàlla sañ ñu daf lay am nag bu ko waxee na jeex na ñoom ñaar kenn leen ci waxat dara góor gi duñ ko waxati fa nga xasee leen njaalo ndaw duñ ko waxati fa nga njaalo fii la ñu soriant bi xemale rek yàlla moo xam nag xam na ne am na ku ci fen waaye loolu nag xisaab wàllu yàlla ñun duñ ci dara nit xatte lañ ko sant ma xisaab loo wuñ ko kenn yoon lañ ko tëral na ko jaaral fii rek mais xisaab loo wuñ ko kenn moo tax summatal taxeenu topp rëbbu hiya ndaw si mhm. arbaan ñeenti yoon mhm. mu ne ashadu billahi mhm. ma zanaytu wala ashadu la laqad kadaba loolu lay wax wa tuxammisu mu juróomeele bil xadabi ci mer mu ne su fekkee boroom këram wax na dëgg kon moom yal na ko yàlla sañ kama dakara ni ki tuddee àtte bi allahu yàlla subhanahu wa noonu lañ ko jàngee ci alquran dafa am ku ñuy wax Hilaal ibnu Umayyata dafa dugg ci këram dikk ci yonent bi wax ne moom dafa fekk soxnaam nit fekkin wu ko jubóodi te mënul teewal seede te boobu dañoo waxoon ne ku xas ni te indoo ñeenti seede dañ laa caw jom ñett fukki yar te faase nga mën a moom nag nee na fekk na këram defin wu ko neexut mm-hmm. ci diggante nit ak soxnaam mm-hmm. te teewalu seere xam nañ ñu koy tàmbalee jam sax nag mm-hmm. ndi aaya bi jiitu alladina yarmuna almuxsanaati summa lam yaatu bi arbaati shuhadaa fajlidohum samaanina jaldatan wala taqbalu lahum shahaadatan abadan ulaika humul fasiqun waaw ku mel ni Saad ibnu Ubaadata kilifa Xasraj dafa xawoon fii xam nga saaba yi ay nit lañ ni nit ñi mel noonu lañ mel waaw te dañ la war a lu ne waaye da xam ne nag ay nit lañ moom ak ñi demee ni moom ñoom gisuñ daal weddi waa ñoom dañoo wax ne mbir mi dafa jotee <laughs> mbir mi dafa jotee ba jarul gaaw weddi parce que itam nag la nga gis sa biir kër ci foo xam ne yow yaa fa war a ci mbedd mi ne dangay wuti ku la seere xanaa yaa seere baa ngeen a àggee loo koy wax kam ko fekk doo koo fekkati loolu la gis te loolu leenu maana la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo ni mu daan jëfandikoo mooy xaar ba xam lu ko borom di wax ci nii ay alladina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum suhada illa anfusuhum fa sahadatu ahadihim arbau sahadatin billah innahu la min alsadiqin walxamisatu allahnatullahi alayhi in kana min alkadibin wa yadraw an alhasaba an tashhada arbaa sahadatin billah innahu la min alkadibin walxamisatu an qadiba allahu alayha in kana min alsadiqin bi wàccee yonent bi jàng aye bi xoo hilaal xoo soxna si xoo mbooloo bi nettali ni mu demee jàng aye bi ne kon xatte baa ngi nii léegi wax leen gaa ñu wax ak hilaal ragal loo ko ragal loo ko mu ne moom li ko jaaxal diggante mu yàlla li bokk ci dal di giñ ñeenti ngiñ dëkk ba ci bu juróomeel bi gaa ñu forcé ragal loo gi lool mu ne moom li ko jaaxal diggante moo yàlla li bokku ci def bu juróomeel bi ne ko dama toog waaye ba si ñëwal soxna si taxaw ñu ragal loo ragal loo mu ne xuul na ni xilaat dafay fen borom kër ma ko dëgg li ko jaaxal diggante moo yàlla bokk def ñeenti ngiñ yi dem ba sës ci bu juróomeel bi ñu ragal loo ko ragal loo ko mu dem bu bëgg a rikkile daal di risque ne danaa ko def daal daw bu juróomeel ne moo gisa la nag dafa wax ne ndaw si coow lii topp jamono bi mu ngi am mu ne doom ji mën naa juddu mel nangam mel nangam mel nangam mel nangam noonu su ko melee moom góor gi moo fii rek mais borom këram tooñ son sonam tooñ wala mu juddu mel nangam mel nangam mel nangam noonu su ko melee diw sangam moo ko tudd ko ko jóg ku bokku la borom tooñ jarul may leen wax tur bi dégg nga yàlla def doom ji juddu mel na nga xam ne moo dëpp ko nu yeneen kii waxoon ne su ko doom ji melee borom kër gi juru mu wax ne lawlal aymaanu la kaana lii wala sha'nu mu ne comme giñ loo naa ko giñ na tey amatul amatul lu mu koy wax sëriñ foofu la yamlu mais bu ko duudoon kon kii dana fu ma jaar ak moom parce que lu bon la def waaw waaye sëriñ fii la mu yem la mu la demee moo tax xam nañ ne am na kuy fenn waaye ana kan moo war a xisaab lu nit ñëw waaw mais dag ku ñu nekk da nga wax rek mu jeex waaw góor gi yow doo ko waxaati ko njaaloo nga xas nga ni ndax lii tax kenn du ko waxaati moom def na ko ndax doo ko waxaati ne ko njaaloo nga ndax lii tax ken du ko wax moom def na ko subaa na da ngay ne yow fii nga ma a yem rek mu jeex seen bu baax a baax góor gi léeg-léeg mu koy jëriñ mooy kenn du ko gëtën gëtën ni njaalo te doom ji mu wax ne juru kenn du ko waxaati yaa ko jur ndaw si loolu gëtën ne xaste kon kenn du ko doom ji mu wax ne juróom kenn du ko waxaat ne yaa ko jur ndaw si loolu lim koy jëriñ mooy kenn du ko waxaat ne njaaloo nga te góor gi dana ko ñàkk ba faw dootu nekkatee moom ah moo ciy nekk lu doy waar lenn ci yàlla musal lu doya doya doy waar lu doya doya doy waar la gis nga ko bu baax a baax jabar du nu la neex ngay waxee ak moom de jabar du nu la neex ngay waxee ak moom tuuti moo de ñaagale kii bi maanaam su ma tal temps yéen topp rëbb hiya ndaw si arbaan ñeenti yoon wa tuxammisu mu juróomee lee bil xadabi ci sànji kama dakara ni ki tuddee ko allahu yàlla subhanahu wa taala dafa wax xatte bi te indiwul aaya bi wayin nakalat bu ragalee hiya ndaw si nag rujjimat jamees ko bam dee in kaanat bu nekkee hurratan di gor musanatan baraaji sangewoo bi wadin ci laal gu xam ne taqaddama jiitu woon min hada sawji tukkee ci jële jëkkër aw sawjin wala jëkkër xëyri yi judul moom su fekkee góor gi moom giñ na ndaw si ñeme wuute giñ kon yoon day saxal ne ndaw si si naanu su baax dañ ko géteen géteeni si naan su dee sangee wu xoon na dañ ko jam bam su fekkee sangee moo xam ci jëkkër ji la sangee woo wala ci keneen fa in na kalat bu ragalee hiya ndaw si rujimat jamees ko bam dee in kaanat bu nekkee hurratan di góor mu sanatan bu sangee woo wadin ci laal goo xam ne taqaddama jiitu woon na mi naa da saw ci jële jëkkër aw zawjin wala jëkkër xëy na judul moom way laa bu fekkee sa ngeen wóor nag ah, a julita doolees ko miata jallatin téeméeri yar su fekkee moom sa ngeen wudoon yoon saxal na ne njaaloo na di taw ko téeméeri yar tuuti moo des rek way naka kala bu ragalee asaw ju jëkkër su fekkee li dafa am nag ku góor ki li ko sant ñemewu ko jigéen ji def na li ñu ko sant kon julita doolees ko haddal xas bi gën a ne xaste sama ne juróom-ñett fukki dañ ko caw juróom-ñett fukki wala xeexate yeeg bii ci moom alwala du doom ji te itam dañ ko wax nag bu la neexee bu la naqaree doom ji yaa ko jur li ci war it danga ko def waaye naka bu ragalee asaw ju jëkkër ji juli da doolees ko xaddal xas bi gëte ne xaste sama ne ne jom ñett fukki yar wala xeexate yeeg bii ci moom alwala du doom ji dañuy jàng tuuti rek li ci tax di bind su ko walil maraati ñeexaan na jigéen antaf tadiya ba mu jotoowaat min saw ci jëkkëram bi sadaqaa ci canam jigéen bu ko neexee mu toog toog ba ca kanam mu yëkkati kenn la boroom këram defoon ci moom na ko lii nga defoon ci man léegi jël ko ñu jéggalante nga dem ma dem loolu na ko awaqal la wala lu gën a néew lañ ko canee woon sax li muy joxe lu gën a tuuti lay doon comme borom kër ay yu bëri la la ko joxoon moom mu yëkkati benn téeméer jox ko nag dama bëgg lii te jéggal nga dem ma dem loolu jigéen man na ko awaab sarawa lu gën a bëri wala sax lu gën a bëri lañ ko ca neewoon lay do moom lay yëkkati jox ko jëkkëram ne ko dama bëgg nga jël lii léegi daal man maanaam maa mënoon mënatuma yu jéggalaan idaa lam yakun bu nekkul an dararin ci lor bi gu nekk ca ndaw sax te fekk borom gi defu ko dara sax defu ko dara sax na xam nga sëy du farata lu dagaan la rek gannaaw ku ko defu du mooy du farata du farata ci ku góor du farata ci ku jigéen comme du farata nag boo ci soo bu neexee nga ba ko loolu moo ci nekk man ba ma ko jàngee vers dafa ñaawoon ak man trop waaye bu bii diguma ko mais dafa ñaawoon ak man trop nekk ak ñun baje kanam deful la dara nga toog baje kanam nga ne ko dem loolu daal moom <laughs> waaw fekk ñàkk dégg la rek waaye ni mu demee mooy loolu sëy bu fekkee boo ko deful la tax a mooy yàlla kenn du wax ne farata la ci yow dul ko ci góor dul ko lu dul farata nag boo ci bu la neexee nga bàyyi ko loolu moo ci ne rek lu dagaan la rek lu dagaan ko yow da ngay reeree cere ba ci kanam boo nee nga bàyyi da reeree leneen kan moo la ciy wax dara kenn da nga doon yére bu diis ba ci kanam nga bàyyi ko di sol yére bu woyof kan moo la ciy wax dara kenn noonu la demee rek <laughs> noonu demee rek parce ku ñaw la li muy tëral moom rek moo am na tasinu sëy daal ci fii ci ngay am sa jabar mu mer nga bàyyi ko seen kër ay bokkam ne dañoo dindi diggante bi ñëw na jox dara ne mooy dogloo nga jël loolu nangu ne diggante bi dog na ba pare jaar bi ko di bind luñ la fayee li nga nangoo bi dog loolu nga moom bu ñu la joxul loo doy rek neen bu leen fi indi li nga loolu dañuy def dañ laa jox tuuti rek ne dog loo nga jël ko diggante bi dog nag ngay doog a nekk di bindati lii dog loo koy jeex na boo ko jëlee kay loolu nga moom naa loolu daal moom war nañ di ko seet loolu daal loolu daal war nañ di ko seet yow d'accord ma ci dara loolu daal moom man xaw ma ko waaw li mu xam mooy liñ la jox dog loola boo ko jëlee loolu nga moom jeex na amatu leen looy laajit amatu leen looy lu sew la nag lu sew la na seet dégg nga bu moo tax ne walil maraati ñaan na jigéen antabtadiya ba mu jotoo xat min saw ci jëkkëram bi sadaqihaa ci canam la borom kër gi defoon daal loolu la tolloo delloo ko na ko loolu la toppatoo delloo ko na ko léegi daal man maa mënoon mënatuma ah jéggal ma mu jéggal la awa xal la war lu gën a tuuti lañ ko cane woon lay jox borom kër gi aw sara war lu gën a bari isa lam yëkkun bu nekkul loolu han dararin de soo woo ci lool bi aa gu nekk ca ndaw sa te fekk borom kër gi defu ko dara sax nag fay kaana bu nekkee nag jotu googu xam dararin defaxe ko ci lor bihaa ci ndaw si rajan dellu jigéen dellu jigéen bi ma ak li nga xam ne en tat joxoon na ko hu jëkkëram wala si ma woo te war jëkkër ji alxulon su su fekkee moom moo yore ndaw si nag di ko lor war na ko dundal bañ ko dundal c'est waaw comme nawleem la bu ko neexee mu saaga way juri ndaw si façon yooyu ni nga gisee ñu def gannaaw ñi di ko def so ndaw si demee ba gis ne jomam wa mayatu ko muy nekk kii su yëkkatee dogloo jox ko ko da ko yóbbu ci yoon su ko kalaamee wax ni ko jëkkër ji def su ko dee di convoqué nangu can ngi nangu li ndaw si joxe woon ko ndaw si ne ko demal sa yoon yow comme bugg waame da ngay ñàkk mu jeex noonu la demee rek yore na ndaw si di ko lor di ko lor rek ba ndaw si xam ne kii fi ne ma nekk moom baaxatul ci ma waaw mu yëkkati dara jox ko na ko ñu jéggalaan mu doon lu xam ne jëñ lor dëgg moo ko ci xeer da ko yóbbu ci yow su waxee xaakimul muslimin li ko ndaw si def li ko góor gi def bu leen xaakim waaye dana nangu li ndaw si joxe woon delloo ko ndaw si ba pare ay aywa góor gi acci demal da ngeen di ñàkk da ñàkk mu jeex sa nawle dañ la ko joxe woon pour yore comme yore woon na dañ koo dindi tuuti moo des rek fayin kaana bu nekkee jotu gi xan dararin ci lor biha gu nekk ci ndaw si nekk bi ci la loru ndax li ko borom kër gi war a toppatoo toppatoo ko respecté wu dundam respecté wu deram lu ko neex la koy def kon rajan dellu ndaw si bi ma ak li nga xam ne en tat joxoon na ko ko jëkkëram da ko yóbbu ci yoon ñi delloo ko li mu joxe woon wala si ma woo te war jëkkër ji alxoon summi dana jëkkër day ñàkk wal xuloon summi nag talxatun fase la mu xam ne laara ñaata déet fay li fiyaa da ca nekk dina ku ko tàkkoog jabar amatu tak amatu delloo de amatul delloo de jigéen bu yëkkatee dogloo jox la ko nga jël seen diggante jeex na amatul nañ wax delloo la ko rek ca takk-takk bu njëkk déedéet illaa bi nikaahin ndaree ci say jadidin bu daa ji xeese bir daa ci ngërëma ndaw si xanaa takkaat ci kaw mu nangoo waaye takk-takk ba mu la joxee dogloo ba mu ñàkk nga ko ci baax na foofu beneen yoon insha allah ndaw suñu goreel taxtal abdi ci ron jaam ron jëkkëri jaam lahaa ñeexal na ko alxiyaaru tànn mm-hmm. an ba mu saxaat maahu ànd ak moom mm-hmm. aw tufaariqahu walla mu tàggalook moom mm-hmm. jigéen dafa nekk jaam da sa yëg jëkkëri jaam ñu dem dem ba ca kanam moom ndaw si ñu goreel ko te goreeluñ jëkkëram su ko neexee mën nay wéy rek nekk ak moom di soxnaam ndax du lu koy wàññi dara ndax moom comme gor la boo amee doom rek doom ju góor lay doon te kam doon rek la doon bon bu ko neexee muy nekk ak moom su ko neexee itam nag mu ne moom day tas parce que nawleem la bëgg a nekkat dafa doon jaam góor gi di jaam ñuy nawle mu nangoo nekk ak moom ci loolu léegi nag comme moom góor la te góor ak jaam duy nawle moom du nekk ku dul nawleem day ba su ko neexee mu wax loolu seetlu bu baax a baax ndax góor ak jaam duy nawle te mu ne du nekk ku dul nawle moo tax ne wal mu'taqadu ndaw suñu goreel tata lamb di ci ron jëkkëri jaam moom da doon sëyeeg jaam ñu goreel ko waaye jëkkëram goreeluñu ko lahaa ñaxal na ko alxiyaaru tànn at tuqiima ba mu saxat maa waxaan rek moom man na wéy nekk ak moom rek comme nañ nekkee woon du lu koy wàññi dara moom kam dowoon la do aw tufaariqoo wala mu tàggaloog moom wala mooy daal nañu xaajoo su ko defee mu wuti nawleem wa man istara ku jànd na mu sawjatahoo jabaram mbaa jabar ji ko wa man istara sawjatahoo aw istaradu hiya in fasaxa firee ko nikaahoo sëyam nit ki dafay denc jabari jaam mën naa am lor moo ko ci xeenoon dem ba ca lor ga teggeeku mu jàllale ku jànd jabaram ja sëy ba moom tas na moom léegi li nekk mooy nit ak jaawam bu jigéen la man naa wéy de dund ak moom waaye dundinu moomeel nag mooy xam seen diggante waaye dootu dowaat dundinu denc nag ndax ñaari kilifteef yi mënuñoo doxandoor te kilifteefu moomeel mu ëpp doole kon bu rot see fekk kilifteefu denc il faut day daane kilifteefu denc gi dégg moom boog paree jaaw doon denc ndaw su xam ne góor la ah ñu dem ba ca kanam ndaw si génne xaalis dal di jënd jëkkëtam ah sëy bi moom tas na de moom de waaye moom lañ doon kilifa moom ndaw si de ndax moom lañ doon denc waaye tey mooy kilifa gi ndax moom moom kon sëy bi day tas foofu lay yem mu jeex tat léegi nag bu bëggee wéy pour nekkaat ak jëkkëram jooju mu jànd xanaa da koo goreel su ko goreele sakku mu takku ko bu sàkko mu takk ko su neexee jëkkër ji mu nangu su ko neexee mu bañ waaw loolu mooy tax mbir mu mën a doon boo cee dugg war nga di bàyyi xel fa mu jëm ak yow waaw doon boo cee dugg war nga di bàyyi xel mu jëm yow waaw war a demee waaw moom jigéen la di jëkkër yi jaam dem ba kanam mu jënd jëkkëram ji ñu ko sëy bi nag moom tas na parce que mënul nekk sa boroom kër ngay sangam yaay kilifaam te anam nga doyee kilifaam da nga koo moom mu ëpp doole kilifte fu deñ kon sëy moom jeex na subaa sëy foofu lay yem su fekkee bëgg naa wéy na da nekkaat ak jëkkëram jooju xanaa da koy goreel léegi nag bu ko goreelee nag na xam ne moomatu ko nag ji kilifa ak boppam la moom kilifa ak boppam la léegi li mooy sàkku mu takku bu sakkoo mu takk ko nag jëkkër ji comme gor la moom moo xam intérêt bi ko ji nekkal su gisul intérêt am na waa na ko ah léegi daal nañ jéggalante jeex na waaw léegi la nga ma defaloon fekk yàlla moo tax ah am nga yàlla su gisee ne ba tey baax na ñu nekk rek noonu lay demee mu mu takk ko ñu nekkaar rek noonu <laughs> rek lay demee waaw yoon neexul dara yoon yoon yombul mbir de yombul de moo tax ne wa man iftara ku jànd na mu zawjatahu jabaram mm-hmm. in fasaxa firee ku woo sëyem mm-hmm. wa talaqun abdi fasem jaam kal xataani ñaari fase la mm-hmm. jaam buy denc jabar su ko ñaari fase jabar ja ca lay xaraamee ba ma da sawjin comme góor fase ñetti fase wa heddatul amati hedday jeebeer haydataani ñaari haydu la jaam bu jigéen buñ ko fase buy heddahu ñaari haydu moom lay xeddawu mooy ñaare laab ñaare xuru muy xeddaam wa kafaaratul abdi kaafaraay gor kal xurri jaam la mu ne gor ak jaam benn lañ ci kafaara wa kafaaratul abdi kaafaraay gor kaafaraay jaam kal xurri gor la dina ci muskilaati téere bi dëgg la moom waaw mu ne gor ak jaam benn lañu ci kafaara muskila dëgg la xam nga li tax mooy jaam du goreel jaam du goreel mukk mënu ko ci kafaara mënu ko te nag gor na yam foo xam ne bu fa demee bu mën a goreel du sañ lu mooy goreel loolu benn wuutee la beneen bi ci topp mooy jaam bu sang bi daa foorut man da lele gor nag bu sësee ci lele amul wéy ci waa wi kenn day lele rek mu jeex kon jaam benn xeetu kafaara rek mooy boo xam ne bu ko neexee mu dal ci amul déglu kenn mooy xoor rek te loolu jaam benn xeetu kafaara rek mooy boo xam ne bu ko neexee mu dal ci amul déglu kenn mooy xoor rek kon comme gor la ci kafaara kooku muskil la dëgg la am na ay tontu nag yuñ ci def am na ñu wax ne liñ ci jublu mooy tansif moo ci dul am maanaam jaam bu ko sang bi mayee mu kafara lele lim gor war a lexal lele loolu la war a lele fi góor di lexalee juróom benn fukki miskin jaam du fa lexal fanweeri miskin juróom benn fukki miskin la fay lexal fi góor di xooree ñaari weer jaam du fa benn weer ñaari weer lafay fay xoor ñàkk a xaajaloo gi ci maanaam kafaaratul abdi kal hurri am nañu loolu lañ ko gisee xam naa gisin bu yomb nag xam ne xana mun a ay waaye bii daal moom gën a jege daal moom mu ci gën a jege a jaam kal huri ni ki la bi xilaaf maanil hududi ci wuuteeg maana yaa ñoom benn ba gétteen la wa ak fase waaye buñ demee ba ci gétteen nag wala ñu dem ci fase nag mm. foo moom ak jaam dañ kaajoo de mm. suñoo géteen li ñoo teg góor mm. genn wàll gi ñoo teg jaam fu ñoo cawee góor téeméeri mm-hmm. jaam juróom fukki yar lañ ko fay caw fu ñoo cawee góor ñi juróom ñett fukki jaam ñeen fukki yar lañ ko fay caw bu ci géteen noonu la bu nee ba ci passé itam noonu la ak li ànd ak ni ki ilaa góor bu defee ilaa ñeenti weer lañ ko xàppal jaam ñaari weer lañ koy xàppal gor buy fase ñetti fase la ñoo xam ne bu ci la ndaw si xaraam ba buy jaam ñaari fase lañ koy xàppal maanaam loolu lañ jublu ci alxuduud wa maa fi ma ak at-talaaq wa maa fi maaniha bi xilaafi maanil xuduud ci wuuteeg maana yaay ñoom benn ba gétteen la wa talaaqi ak fase moo ko doon bind yow téere biñ di foyee nii rek ku moom téere bi ah jël téere di fooyee rek lii mooy lan xoolal bindi bindi caaxaan yi rek ah, kenn du ko def fooy foo dafa am fu mu dëkk nga baax baax foo sax boo ko fooyee mu yàqu lu dul foo nag nga ko fooyee loolu mooy la foo sax boo ko fooyee mu yàqu lu dul foo nga de ko fooyee ñu ngi fi marqué xoolal lii xool lii de bee lii de m ñu ngi ko def ci digg kii xoola rëdd bi lii du mooy njëriñ seetal téere bi li ci liggéey ba mu de téere rek loolu nga war a seet li ci liggéey ba mu de téere nga li ci liggéey ba mu de téere nga war a seet li ci liggéey ba mu de téere rek bari na de waaw yàq baaxul waaw waaw seetal machine ci liggéey ak la ko doon dawal ci courant seetal ñi ci doon liggéey seetal alal yi ci dem seetal loolu lépp nga di ko yàq baaxul waa ji seet baax baax waaw seet ku na ay machine liggéey nañ ci te machine nga ne loxoy neen du ko doxal te machine nit moo koy jël da ko manipuler da ko da ko da ko liggéeyee seetal ki doon liggéeyee machine ak la doon dunde ak temps ba mu ca def nga seet machine bi ko dawal ci loolu lépp waaw yàq baaxut fo baaxut waay bi ñuy fooyee nañ ko bàyyee waay bu ngeen demee ngeen wax ko borom ne ko maa ko wax su fi newoon ma wax ko ko fo baaxut waay dégg nga wa lépp lu xam ne wasala joti na mu ilaa jofi radin ci biiram aji nàmp fil hawlay ci ñaari at mi na labani ci soow fa innahu naka loolu yu xarrimu dana mu xaraamal gune bu juddoo fig ba mu xamee ñaari at jigéen jummu soowam jigéen jooje ca ña ko nampal lañ koy boole mos googa lépp luy xaraamee ci nampaale fa cay xaraamee waye masatan doonte macc la waahidatan bare benn doonte benn macc la saanak wala yu xarimu du xaraamal maa urdi alu nàmpalees na ko ko bandal xaw lay ni ci gannaaw ñaari xat waaye gune bu xamee ñaari xat bañ wax ne fer na na ñaari xat tollootu jamonoy nàmp kum ma soowam itam loolu loolu duut mos gu ñëw tuddee nàmpaale ndax kooku bokkut ci ñu ko nàmpal loolu du xaraamal dara illa ma ndare lu xam ne xaruba jegeñ na mu min ci ñaari hat xanaa leer mu doone romb na ñaari hat waaye lim ko rombee bëreegut kon de kum ma mos googa dañ ko jox hatte mos ñaari hat mos ak biir ñaari hat ka soori ki benn weer la rombee ñaari hat yi wanax wi ak lu ko niru ne ñaar fukki weer ak juróom laamaane waqiila waxe na ne wa soorey ak ñaari weer ñu ne ndax am bu ko rombee ñaari weer bëreegul wala puuse la bu pera leesee ko moom gone gi xablal xawle ni ci ñaari at yi fisaalan ak ak feral istax naa goog doyloo na fii ci moom lam yu xarim du xaraamal maa urdi alu napp lees na ko banda daalika ci gannaaw loolu gone balaa xam ñaari at lañ ko feraloon la taxoon ñi feral ko nag mooy jëmmam dëgër na mën naa lekk ci li nit ñi lekk kon soxlaatul nàmpal ñu far ko feral waaye kom comme fer na kum ma soom itam duñu wax ne kooka ca ca ko nàmpal la wa yu xarrimu dana xaraamalee wala wa yaxrum wa yu xarrimu dana xaraamalee bil wajoor yi ci wajoor mooy li ñuy wax xol ku sonate ak sonat dañ ko firee mbor xol mooy nandale ko ci bakkan tey su fekkee xale bi duut moom moo sex weer wi nàmp sow bi waaye sow bi dañ ko génnee ci nit ki defal ko xale bi ci pexe kon itam nàmpal la rek seetlu bu baax baax dañ ko nàndalee ci bakkan dañ ko nàndalee ci gémmiñ dañ ko defal xukk na ak lu mu mën a doon rek dañ ko booleeg dara jox ko ko yëpp ko ci yam rek nàmpal la wa yuharrimu dana xaramale bil wajoori ci wajoor mooy xol wa somate ak mbor xol mooy naan lew ko ci bakkan wa man ardahat ku nampal na mu sabiyan ak ak gune jigéen bu nampalee ak gune fa banaatu tilkal maraati doomi jigéeni joojale jigéen jigéen joojale nampal xale bi képp kum jur wa banaatu fahliha ak doomi jigéeni borom këram ga ak soow moomale góor ga ko moom moo xam ñu ngi nekk ba léegi wala nekkatuñ maa doom yi nga xam ne taqaddama jiitu nañ muy doom yi makki aw taaxara ak ñi mujj wala ñi mujj ak ñi kii mag ñëpp ixwatun ay bokk lañ la hoo ñaal kii ñu nàmpal ak jigéen la ñu ne kii moo koy denc walla kii moo ko doon denc seetlu nga baax a baax xam nga soow ci góor lay bayee ko kii moo koy denc wala kii moo ko doon denc bu amee soow kii a ko moom léegi nag mu nàmpal la yow na gis nga baax a baax subaa jigéen jooju képp kum jut yaa ko magam moo mag dut koo mën a denc sa mbokk la ci nàmpale kii moom soow mi képp kum de bayam yaa ko magam moo la mag doo ko mën a denc sa mbokk la seetlu nga ni ko waxee rek wa man ardaat ku nàmpal na mu sabiyan ak ak gune gune gi mooy yow as ndaw moo la nàmpal fa banaatu tilkal marati doomi jigéeni jooju de jigéen ndaw soosale nàmpal la képp kum de yaayam wa banaatu fahliha ak doomi jigéeni borom këram ga ak Souleymane mi moom soow mi mu ngi nekk ak moom nekkut ak moom waaye moom moom soow mi képp kum de bàyyam maa doom yi nga xam ne taqaddama jiitu nañu mu de ñi la mag aw taaxara wala ñi mujj wala ñi nga mag yow ñëpp di ixwatun ay mbokk lañ la wañaal kooka ñu nàmpal ñooñu de man la caa denc ci kenn comme ci maanaa doo sa mbokk la su dee yaa ko mag sa rakk la su dee moo la mag sa mag la rek noonu rek la demee dégg nga wali am yi ñaan na mbokkam kay nampal nag ka nga xam ne da ngeen bokk jenn yaay nag waaye bokk leen fenn fu ngeen nampee nag kooku ñaan na ko ni kaaw banaa teya den ci doomi jigéen ndaw soosa kooku de mën naa takk ci doomi ki la nampal moom baax na foofu beneen yoon incha